Audio mais ñaan yàlla di yóbbu ñu ci jàmm rek parce que match bi accès guñ fa mais comme li ñu doon wax rek comme li ma waxoon si ma déggee si sama coéquipier yi ku ci mel ni sama capitaine euh, Kalidou Koulibaly dañ doon waxtaan ñu xam ne entre instant boobu Cameroun mu ngi préparé demi-finale ak euh, l'Égypte mu ne si jamais l'Égypte yi passe sa veut dire on va les jouer trois fois en moins de trois mois ñun lan la waxante woon ensemble boobu y par pas toute l' équipe mais lan la waxante woon suñu biir mooy si biir final bi lañ leen di lañ leen di découragé loo déjà comme ça dañuy régler seen compte nga xam ne ñeneen ñaari match yi di ñëw pour la coupe du monde incha allah ñoom duñ ci sax am espoir mais comme que demeewul noonu nañ ñaan yàlla yóbbu ñu ci jàmm ñaari match yi di ñëw te ñu xam ne voilà. ñun coupe d'Afrique bi fàtte nañ ko jël nañ coupe bi leen lañ bëggool jël coupe bi andil ko population bi jox leen ko après ñun ñii en tant que joueur en tant que staff le coach ku ci nekk rek da ngay ñibbi sa club jéem a liggéeyaat andiwaat beneen euh, beneen mentalité bu dul mentalité coupe d'Afrique parce que coupe d'Afrique bi déjà mu ngi suñu ginnaaw.